asalaamaaleykum mbokk téléspectateur 2STV ñëwaat nañ ci seen beneen numéro de votre émission confrontation comme ni ma koy amalee ajuma ju jot nee naa leen confrontation da leen di indil ay ndaanaan ndaanaan yoo xamante ne dañ leen di ràññee ci seen originalité ak seen créativité la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé du ma ci bét benn yoon dama koy ànd ak sama rakk sama xarit Mouhamadou Moustapha maa ngi lay nuyu di maa ngi lay fay bu baax a baax. Euh, ah. bisou la grande sœur maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax a baax a baax kontaan ci euh, bokkaat ak yow encore euh, plateau bi di nuyu képp kuy téléspectateur yu 2STV waaye itam rawatina ñi nga xam ne ils ont émission préférée du Sénégal et dans le monde <coughs> osons le dire ah muy confrontation donc maa ngi leen nuyu maa leen di xaar bu baax a baax bisou. ayca Mouhamadou Moustapha balaa ñuy sori nag <coughs> du ñu def lu dul ziar suñu mbokku taalibe yi nga xamante ne wax dëgg yàlla. jóge nañ ci bis bu nga xamante ne euh, suñu xalif bu tedd bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér amal nañ ko euh, keroog 11 août fële ca ak fépp foo xamante ne fépp fu murit mën a nekk ci àddina bi euh, gars yi wax dëgg yàlla teewul nañ bis bi ah, def ndigal li matale ko jàng xasida jàng alxuraan comme ni ko sëñ bi diglee ñu ci am contentement bu baax ci bi ñu yàlla dimbalee ba ñu fekkewaat ko tey ñaan li nga xamante ne moom lañu ñu sabab lu woon ci bis bi euh, sëriñ bi mottali ko ci barke Cheikhul Khadim ñu koy euh, euh, santaat bu wér ci bis boobu nga xamante ne amaloon nañ ko keroog ca 11 août fële ca Touba. ba tax itam ñun itam ñuy luy événement ci événement la waaye Sénégal nekkoon ci tiis. Mhm. te boobu ba léegi defuñu woon émission. Mhm. muy xalifa ni ak xalifa waa Canaba yi donc ñoom itam ñu jugi fi ñuy ñaan yàlla xaare àjjana. Mhm. te waaye wax itam ñoom ay kilifa diine yoo xam ne ñëpp ràññee lañ leen woon ci l'islam donc bu ñu fi jugee réew bi nekk ci tiis ñu teg ci bés rek. Serigne mhm. Mountakha tamit def li mu def muy loo euh, journée xasida. donc waaw loolu moom loolu moom ci Sénégal lu lu ñu xawoon a ah, gis. mun ñu taxaw. Mhm. Euh, euh, daal di koy joyal cant comme ni ñu koy waxee. Mhm. ah parce que tamit Cheikh Abdoulaye dañ doon wax naan Bakke. dañ doon wax ni jërëjëf. baat bu gàtt la waaye euh, ku jëful doo ko dégg. Mhm. du dëgg donc euh, Cheikh Mouhamadul taxaa tamit euh, jëf nga sàllaw. Mhm. donc du def lu dul sant ko. Mhm. di jaalewaat gars yi nga xamante ne. am nañ tiis waaw parce que xalif général bu génn xalif général yi nga xamante ne génn nañ. taalibe yi dañ koy yëkk. dañ koy yëkk vraiment dañ koy yëkk. tiis la woon pour Sénégal waaw tiis waaye alhamdulilah bi nga xamante ne. maa ngi koy wax léegi euh, xëy nañ ku ci nekk di jàng ñuy jàng alxuraan. dëgg donc loolu yëpp. Euh, euh, ay ay tegtal la ay cant la rek. Mm-hmm. donc du ñu def lu dul wax dëgg yàlla di jaale képp ku nga xamante ne laayat nga. Mm-hmm. di jaale waa Sénégal di jaale ñëpp. Mm-hmm. waaye di jaale waa Canaba. ah c'est très important di jaale ñëpp wax dëgg yàlla. Euh, waaye nag Mouhamadou Moustapha bu ñu jugee ci loolu àjjuma passé mhm. dafa amoon li nga xamante ne wax dëgg yàlla daloon nañ fi ki nga xam ne moom mooy Baye Fall mhm. ah euh, waxtaan bi amoon yu mu jib mhm. te plateau bi wax dëgg yàlla euh, confrontation confrontation ñëpp la continuité la aussi et waaw bu ko jaree parfois waaw ah, parfois day jar mu nekk continuité waaye parfois day daar jar tamit ñu teg ay nit yoo xamante ne dañuy am fasaaxa yaa ngi dégg. Mm-hmm. mën a wax lu nit ñi mën a dégg. Mm-hmm. pour ñu mën a ibbi yeneen brèche. Mm-hmm. parce que tamit euh, euh, keroog benn la ci guddoo yi déborde vase bi rek. ci li nga xamante ne milieu artistique milieu comédien yi ñu ngi koy dund. du dëgg donc euh, ki nga xamante ne moom mooy Amdi Moustapha Amdi Mignon. Euh, daal di soulever benn point. Mhm. ci téléphone bi suscité na débat bu bari nag. Mhm. waaye euh, euh, war na ñu teg ko ci plateau bi. Mhm. mu joxe li nga xamante ne moom mooy opinion ak li mu wax keroog. fan la ko teg. parce que tamit quoi qu'on puisse dire comédien la. te minimum def na vingt cinq ans de carrière. na peut être bañ koy xam-xamuñu woon Baye Fall. donc mais war naa war a mën a joxe opinion am. comme keroog opinion bi mu joxe. tey ji baax na ci loolu mu wax. keroog moom jàppante naa ñun ñëpp sax waaye loolu mu wax. jar na tey ñu teg ko ci plateau mu leerlaat ko ndax yu bari jib na ci. xuloon naa ceeg moom de. ah bon waaw laal ko fi mu gën a méttee xam nga dama ko yob nag. waaw yéen mais nag da ngeen di miinante. loolu moom kenn waxatu ko. <laughs> te xam nga bàyyam moo ma ah ah, waaw. am na kon kii da laa war di jox cër yu gudd. non cër yooyu dama xam ni mu mel ci papaam ma laal ko ci sensibilité am. <laughs> da ciy baax parce que da ciy <laughs> baax. waaw da ciy baax ñu koy jaalewaale parce que occasion la aussi parce que euh, fan yu weesuwul rek. ci la ñàkk way juróom bu jigéen après way juróom bu góor ak ak ak ah, euh, euh, wax dëgg yàlla euh, muy nit koo xamante ne peut-être keroog dina ko expliquer xëy na moom toog na fi tey dina ci waxtaan xam naa nag du yomb waaye début bi nii faaw ma kii la. Mm-hmm. parce que keroog mais baal ma ci sama papa di li ma jox xam nga sama xarit la. bu dul dara sama xarit li ma la yab moo tax <laughs> mais am di dama lay jox nga nuyoog waa Sénégal. Mm-hmm. ah maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu sama collègue yi ma toogal. Mm-hmm. muy Sora. ak Azul Bo. Mhm. di lay nuyu yow Bijou di nuyu Big Taf. Mhm. di nuyu sénégalais yëpp Bijou. Mhm. d'abord balaa ma nuyu sax sénégalais yi sax damay njëkk jéggalu. jéggalu te xam ni sama yaram tàngoon na. am na nu ma doxalee loo xamante ni sénégalais yi bëgguñu ko. xaw moon fii la fii laa toll si sénégalais yi. kon war naa bàyyi xel bu baax a baax si li may waxati. ak li may jëfati. mais loolu dinaa leen ko expliquer ci kanam. incha allah euh, di jaale layen yi. Mhm. ñoom ñëpp nga xamante ne ay voisins lañ. Mhm. maa ngi ñuy jaale bu baax a baax man foofu laa dëkk. Mhm. di jaale xalifa canaba bi. di sant waa Daaru Salaam yëpp. sama sëriñ maam Cheikh Anta. ñëpp ngi toog di ñu seetaan di sant nag ñëpp képp koo xamante ni sénégalais nga. ah bu fekkee yëkkati naa sa xol keroog. nag ma baal àq. te dinaa expliquer lu tax nga ba nga may baalo àq. ma ñëwee rek ci fair play ñu waxtaanee ko ci fair play <laughs> fair play rek ñu waxtaanee ko non violence léegi waaw man ku woote man woote ma violence <laughs> man yiw laay woote ah, <laughs> ak yar ak na waaw jàmm laa indi jàmm laa indi di jéggulu ñëpp nag uh-huh. di jéggulu ñépp Baye Fall sama frère la uh-huh. féq naa ak moom lu raw loolu. Mm-hmm. comme ni ko bisu waxee. Mm-hmm. xëy na nag milieu bi nit ñi dañ ko mën a comprendre. Mm-hmm. loolu maa ngi koy jégalu bu fekkee. te di nga ci ñëw après sax gën a gën a détaillé. ok non keroog moom ñun ñëpp a dépassante. waaw laal naa sa orgueil wax na tooñ naa la sa ba kanam. waaw ma yàq la jaay jaay jaay pour nga mer coupé nga bañ nga ne doo coupé. <laughs> di kon di màmm. Ah, yaakaar naa loolu moo ko xool di jooy coupé <laughs> mais andi nga kon di màmm mais mosuma gis lu mel ni ba tey bu ñu jógee ci am réunion damay dem euh, euh, euh, sama càmmoñ ah ki nga xamante ne wax dëgg yàlla fierté la ci réew kii loolu ki ci ki nga jëm. sama nijaay la. <laughs> parce que looloo jaaxal biir yow. ah kii sama nijaay la. boo xoolee suñu xar kanam gi. non ak yéen ak yéen jikko ak yéen jikko ak façon bi ngeen di traité. métti bi métti dëgg loolu am yàlla ay tukkuleer kuréel jéeme lañ. du dëgg. Mhm. donc wax dëgg yàlla. Euh, Sénégal après la ñuy comprendre rek waaye fierté la moom mi ndax dafa nekk ci milieu bi wax dëgg yàlla nekk ci exemple boobaa ak léegi mu ciy liggéey liggéey boo xamante ne euh, kenn du ne cam waaw euh, liggéey na ci millier milieu bi mhm. defar fi ay star bëri waaw ginnaaw bi fi Cheikh Tidiane Diop jógee moom créé na ay star fexe na ba marqué empreinte am ci li nga xamante ni moom mooy métier bi mhm. defar fi wax dëgg yàlla trouve Pikine mhm. bu ñu gisee stade ci bari ci Petsora lañu lañu lañu jaar bu ñu gisee tey sumbulu ay mbooloo dawal ko jub ko mhm. tey ci Petsora la ñu jaar ak keneen ak keneen mhm. bari na bari na bari bari na euh, euh, wax dëgg yàlla mu mu révolutionné théâtre bi te defagu fi lu ñu naan cam ba tey donc euh, baax nañu dalal ko ci plateau bi tamit te tey plateau bi tey dafa nar a neex Petsora sama nijaay ah sama xarit ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau confrontation waa alhamdulilah ala kulli xaal fii àddina yàlla dong moo fi nekk mhm. ku yóbbu gëm ko te wóolu ko mhm. bu defee nga am jàmm mhm. may nuyu nag ñu nekk ci plateau bi yëpp di jàllee laayeen yi Ibou sama xarit la di ko jàlle Cheikh Mansour Diouf sama sëriñ sama xarit di jàllee waa Ceneba di nag gërëm fa ma bokk di kër Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mhm. ci li suñu xalifa général bi def barki Demba Ndiaye. Mhm. Sénégal dafa laaj ñu wàcc alxuraan nag. na ko de. ñaan xasaay di mhm. bàkkaar yi wàcc. parce que y' a trop de problèmes actuellement. coow li bëri na xëccoo bi bëri lu ñaaw li bëri na ñaanente bi bëri na tuuma yi bëri na. te nag bu diine yëngoo rek loolu lépp wàcc. Mm-hmm. ndax ñi fi nekkoon dañ fee bàyyi loo xam ni Sénégal dafa war a am jàmm. Mm-hmm. ñu ñaan nag yàlla suñu xalifa général boobu yal na ko yàlla lafal cat ba mu yeggale ak sagoom <coughs> mais gërëm nag waa Tivaouane ndax man bien vrai ni murit laa. Mm-hmm. mais sëñ Mansour si mooy sama trondo. moom mu tudd tuddee ma boppam. sama bàyyi El Hadj ma jaaga mbay murit la. mais am na ñeenti doom yoo xam ne tiijaan leen tuddee ndax kuléeri mag ñu njëkk ña dañ daan defar mhm. mais daawuñu yàq te dafa ma tuddee turam ba mu jeex nag Mouhamadul Mansour si mbay te bu ma màggoon mu tuddee ma beneen tur mu koy jindi dama sant yàlla ci nu mu tuddee borom daara ji mooy kii yàlla dimbali moom la mu tuddee doon nag fierté bu mag mhm. heure bu ñu xee Mansour sama seddal yal na ko yàlla xara àjjana sama baay boobu kontaan naa ci moom lool ni na doom ni tuddee na doomam nit mhm. doom ja màgg jindi tur wa tuddee ko keneen mhm. c'est très important mooy ko tax kuy tudd sa doom mhm. boo tuddee ko ku baax ah, parce que dina tax ëllëg yu bari dina ko jombale boppam may nuyu nag azulo boobu sama rakk la du nuyu am di million sama rakk la du big daf yow sama fiis nga. loolu am na loolu am na kii nag sama jarbaat la. parce <laughs> que Seydina Mohamed. ndeysaan mhm. nga neex ma du dara. ni da ngay osé aisé pesé da ngay am fii Sénégal loolu moo xew léegi <laughs> parce que coow dafa bari boo mhm. ñemewul mhm. amul fulla amuloo fayda doo dem parce que bëggu gis kuy dem kon nag yal nañ yàlla may xolu muñ ba tey suñu plateau bi ñu wax wax joo xam ni Sénégal gépp dinañ ci jariñu mhm. di remercier nag El Hadj yi mhm. ndax mooy borom kër gi te ba musique euh, mettee lool moo yëngal ba lépp yëngutu ah ba tey ku nekk xam ni musique am na njëriñ mhm. di di gërëm soxnaam ak njabootam ndax man nit boo doonee om de valeur rek bëgg lu baax rek man dama lay bëgg. salaamaaleykum wa rahmatullah. merci père. merci beaucoup père. Mm-hmm. Euh, euh, euh, bu ma jógee ci père Zora damay dem nuyu ci wax dëgg yàlla jeune la boo xamante ne bi mu fi nekkee di battre plein wam innové na. Mm-hmm. fekk na lu naqaree laal mu laal ko. lu metti waaw waaw lu mettee laal. Mm-hmm. mu joxoñ ci baaraam daal di koy jouer mu nekk rôle bu bari woon polémique. rôle bu metti woon wax dëgg yàlla mi ngi koy topp ba tey wala toppatu ko euh, fan yi euh, euh, gars yi bëtt nañ ci li nga xamante ne bokkatul ci suñu ay vertu mhm. gars yaa ngi jouer du n'importe quoi mhm. donc moom peut-être bokk na ci tey defe naa ni juumuñu ci choix bi nga xamante ne teg nañ ko fii mhm. parce que tungu ne du teew ñu nataal te bu fekkee ni lu ñuy dund lu metti rek la mu dund lu metti ci rôle bi nga xamante ne incarné na ko gëw ma ne góor dina dund lu mettee noonu donc muy Azou Lo ñu koy euh, nuyu bu baax euh, euh, moom Assane ñu ngi koy nuyu ah di ko dalal ci plateau bi am Azou boo nag du turam dëggantaan Assane la turam dëggantaan Assane ay turam affaire boobu turam dëgg. waaw ah, ko laaj turam rek moo gën a gaaw. turam dëggantaan de. dëgg yàlla ku ne naan mais nag mais nag peut être le boobu day day day nduru day day. naar la faal da koy da koy da mu lay nuyu Abda ci biir Lébu di la dalal bu baax a baax ci plateau confrontation. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ah, di gërëm sama mag sama xarit sama kóllëre ku ma yàgg respecté ku ma yàgg fonk ku ma yàgg naw ci liggéeyam. nga xam ni pousse na sama genre gi ñu bari buñ tax ñu gën a fonk aar bi tax gën kaa bëgg. Mm-hmm. am di mignon moom maak moom tu tey yàgg na. Mm-hmm. sama nit sama xarit biso maa leen di gërëm lig taaf. Mm-hmm. maa leen di gërëm bu baax di leen sant di nuyu Sénégalais yëpp nag. di ñaan yàlla a ah, moom mii ci kattanam ak mën-mënam ñu waxtaan wi ñu jëlee ci njariñ. a ah, lépp loo xamante ni nag uh, luy defar aar la ñu waxtaan ci ba doon loo xamante ni luy gindikoo ak luy yàqu-yàqu yëpp ñu waxtaan ci. ba déggoo. di leen gërëm di leen sant man na xam nga dama nitu kersa laa mun maa wax. ah wóotu di nga wax nag. di nga wax de di nga wax de tey de di nga ah, ah, ko doon ma. <laughs> tey wax moom. dum dum waaye daal yi de. dafa seer. suñ ko de ab Ablaye Ndiaye. Hmm? ah waaw ay sama rakk ji laay zumal <laughs> lan la looy xaar. non moom am am ngi noonu ci ginnaaw rek di rêvé ah Karajo dafa. ñu ngi lay karaajo sama xarit bi kaaseel karaajo bala ma expliqué nit ñi. jëlal jëlal bala ma expliqué ñëpp voilà jërëjëf karaajo ma nga noonu. son daal lii dafa seer dafa dafa rafet trop. ay ni sama rakk ji jërëjëf jërëjëf waaye tamit dañuy gërëm sponsor yi nga xamante ne ànd nañ ak ñoom dañuy ànd ak ñoom à chaque fois mhm. ci émission bi balaa beneen gan bi di pare ñu di ko dalal euh, moom it euh, ndaanaan la mhm. ah, nekk ci milieu bi aussi aussi di ci bay waaram ku ne xam na Serigne Gagne donc mi ngi ñëw moom it mu pare ñu kii mais euh, euh, balaa loolu ñun dañuy continuer dañuy commencé tàmbali suñu waxtaan. Mm-hmm. Euh, moom mu daal dañuy fekk si. du dëgg. jibi zumal ah, zum nga yàgg na ayca nuuru laa suy la am na ditax bu bees bi nga xamante ne ditax jox ma ditax bi mu ngi nii ditax bi dafa amaat ah bu ngeen demee si ëddikaay di ngeen ko fa fekk bi ya bees tey moo tax ma gàdd ko nii gàdd bu ma neex dama def verte ditax ànd ak verte nuuru laa mu sedd. jërëjëf euh, euh, euh, mu ngi nii 100 naturel la amul benn produit chimique EDK bu ngeen dem di ngeen ko fa fekk ak prix bu imbattable mhm. prix yu mucc ayib ay king suñu boisson king a ngi nii boisson king baax na si mag baax na si xale bu seddee neex bu tàngee neex nee naa king boisson moo fi nekk waaw kay sama doom nga noonu def king def souris def boo def thé nekk ci king yëpp jërëjëf ngaa ka am au royal <laughs> buur ndox yaa ngi nii au royal la ndeysaan madame Diop bi tey maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax au royal mi ngi nii euh, eau pure euh, claire et très légère euh, ndox mu neex baa ngi nii gars yi daw leen wuti ko tàngaay bi moom nañu continuer rek wéyale ci li nga xamante ne Faben dañ koy gërëm bu baax ci package coffret cadeau yi nga xamante ne da koy may suñu invité yi à chaque fois parfum oud yi jóge ba Dubaï mhm. euh, nga xamante ne gan bu ñu mënti am confrontation ñun dañ lay teral euh, donc du da ngay ñëw rek toog ci émission bi perte sa temps noonu dem perte xam nga am da nga bëgg lu baax waaw waaw da nga mhm. bëgg lu baax faaw ñu jox la ci parfum oud yi mhm. ayca euh, ñu leen di gërëm bu baax a baax bokk na si aussi aussi si po bank yi nga xamante ne macha allah cargo mi ngi koy joxe ah papi po bank yi nga xamante ne macha allah cargo ñu ngi koy maye ñu ñuy suñu ay partenaires depuis Euh, ci confrontation tey gis ngeen sama snap euh, euh, conteneur bi nga xamante ne wàcc naa ko kemp naam waa AZ challenge ah Badou Ndiaye ñoom ñoo def lépp luy jëm ci transit bi transport bi et comme ça ma leen di gërëm bu baax a baax a baax moom Mbagnick ñoom ñëpp wax dëgg yàlla mais macha allah cargo moom mooy def lépp li nga xamante ne moom mooy transport cargo la boo xamante mu mi ngi Istanbul euh, baax mucc ayib euh, seen bagage day ñëw en toute sécurité seen gold ci euh, bijou bi nga xamante ne dañ koy maye ci plateau confrontation pour téléspectateurs yi la dem leen ci site bi ngeen wéyale di abonné pour ngeen bokk ci ñi nga xamante ne dinañ gañe bijou bi ah fii wax dëgg yàlla weer bi di dee fa lañ jëm ak ñoom ay ayca stérisar mi ngi nii gel la boo xamante ne ak lépp luy produit désinfectant nettoyant euh, euh, très sûr à 99 virgule 9999 pour ne pas dire 100 pour cent ah lii mu ngi nii 30 jours da protégé te doo jël benn bactérie. Mhm. muy cas bi SARS bokk na ci lépp lu nga xamante ne mooy Covid beeg Delta beeg bii ñëw ak variant bu boo xalaat rek day protéger. Euh, moom euh, ñun ñi nga xamante ne bii da nga koy pomp pendant six heures de temps nga génn beneen bi danga koy diw si sa yaram beneen bi danga nga koy euh, sangoo am na gel toute une la ah, boo xamante ne prix bi aussi cherul dangeen ngeen koy mën a am ngeen nekk ak moom mais lii moom yii moom xam naa dama ciy teg loxo pour deux déjà njëkk pompe am di njëkk pompe ñu pompante am dëpp sax yaay ngi naan wóorul du ah ñuy vacciné wu sax ñu ngi faatu yàlla wóolu daal daa ñëw indi jàmm bàyyi ko yow yaa jox am sax ba tey mu ngi calme itam damay gërëm sponsor yi nga xamante ne ànd nañ ak ñoom ñëpp dañuy dugg ci débat bi mhm. ah, euh, euh, tawféex la à chaque fois ñuy continuer du ñu tàyyi ci di leen lim ah parce que yéenay dooleel émission bi wax dëgg yàlla euh, jërë ngeen jëf ah, bokk na ci salon de beauté bu baax boobu nga xamante ne dama cee am fi ne nii faaw ma dem ci ah mi ngi ñëw salon de beauté bi spot bi baa ngi jàllaat. jeex na incha allah. sponsor yi tax Aïssatou baal ma dégg nga damay fàtte. Ah, non eh, non dañuy dañuy dañuy bon charité bi dañuy commence par soi am di ci nag la ñuy la ñuy la ñuy ñëw démarrer. doom nday Adamo waaw. ah ah Adamo la yam de. <laughs> génnal ci am di ba mu set. ba mu set am di yow génnal ci am di rek. am di semaine bële passé ba léegi yow yaay def. yow star am di mooy noo ko dundee noonu. depuis loolu tu la l'actualité. mais am di noo dundee li nga def. ak lan nga ci jublu def ko karaj coupé balaa ñuy ñëw ci parce que yow am di yow fii ak ay weer weer weer a ngi nii yaay nekk actualité am di ba léegi la am di lan la <laughs> ay ay da nga commencé am fil de mémoire nañ la yërëm kon non non non euh, bijou euh, d'abord euh, mooy li ma la wax mhm. tey dama ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi mhm. tey dama ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi encore une fois mhm. lu tax ma ñëw pour waxtaan ak ñoom mooy Bijou moi je suis un artiste comédien. Mhm. Mhm. du ma soudeur du ma menuisier du ma mécanicien. Mhm. d'abord lu tax ma duggee noonu wax dama seetlu. koor yëpp koor yëpp ñii amul benn musiciens yi dana organiser wu seen bopp ba nga xamante ni ñoom puy playback rek da leen gis ñu fay leen ay cinq millions cinq millions da nga leen fay. xam nga si dara yéen ñuy toog ci plateau yi xam ngeen ci dara mais da ngay gis artiste comédien cachem bu néewee ba néew ba néew ba néew mënu am sax cinq cent mille ban artiste comédien nga fi gis mu tabax fi ay immeuble amul ban artiste comédien nga gis buy tukki dëggu business amul ban artiste comédien nga gis boo xamante mi ngi dawal oto cinquante million amul te pour pourtant ñun ñi nga xamante ne sous région yi nga xamante ne ñu ngi fii suñu dëkk yi ñoom bu ñuy dem boo demee ak ak ñoom dañ la ñuy gis dañu nekk à kon sénégalais yi kon nañu delloo njukkal si réew mi nañu delloo ci lu ñu moom mm-hmm. li ñu moom mooy lan nañu jox ci bañu moom ku taxaw ci télé bi di wax bu la neexee dugal ci internet bi ñaan kooku yow la mais bu tilimal suñu der mais am de est-ce que nekkul duñ liy wax ne uuda nu mu la gisee rek la lay ëwalee waaw moo tax mu ne la ñun dañoo am ay xale yoo xamante dañoo nekk suñu ginnaaw xale yoo xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw yoo xamante ñun lañu yaakaar mag ñu njëkk ña liggéey nañ li ñu liggéey ba pare mu rafet kon ñun ñu si tolloo bay waaja dem ay fin kon na rafet ça veut dire que da bëgg wax ne yéen am na ñu koy yàq am na ñu koy yàq ci naka te loolu duñ ko nangu ci naka la ñu koy yàq luñ koy yàqee mooy comme li voilà li ngeen gis li ngeen di gis bëri na li ngeen di gis ci showbiz bi bëri na mais dama jug rek uniquement rek xëy na li ma introduire moo baaxul mais sama xol moo jug. mais est ce que gars parce que yaa ko war a wax waaw est ce que du yow yaa war a yow yow yow yaa war a wax loolu. parce que gars yi parfois bu ñu lay gis sa yenn sortie wala sa yenn spectacle dañu gis am di ci beneen anam. mu am day ñëw déconné tooñ fii keroog ñu gis la nga xeex fii est ce que dañu ne am di mii du moom moo war a wax lii parce que moom maanaam kuy déglee sa ngaay da ngay fekk Mm-hmm. mu leer ci bopp sénégalais yi tamit loolu dinaa ci ñëw dama koy off dinaa dina leer ci bopp sénégal mm-hmm. encore une fois moi je suis comédien boo leen xoolee boo leen xoolee li sax man di ma doon bëggoon développé mm-hmm. yéen ñaar la yéen a indi coow li yéen ñaar mm. bokk nga si ñu indi coow ndax lan ndax ba ma wootee tag mm. dama ne tey dama woote en tant que Amdy woote wu ma pour ñëw fii tey sama xol jeex na trop wootewu ma pour ay indi ay ay ah, wala indi ay kii mhm. mais la ma la ma déclenché loo waxu am di jarul dóor sa doom fukki siwu ma si du ma si dóor sama doom mhm. waxu am di dof la boo xamante day taxawaale si biir nit ñi sa papa nawlawu mhm. foofu nag ak ni ma mel ak sama papa ku ne xam ko foofu nag moom damay pétaal ah, kon maal tàkkal yaa ma tàkkaloo bisu yow yaa ma tàkkaloo ñaaw ngemb yow yaa ma tàqaloo. ay waay ma loolu loolu loolu bokk na si loo xamante ni tey jii sama communication sax mm. dafa yàqu. <laughs> ma am de en tant a waaw que ne xam am de billaahi wallaahi tallaahi. bi. waaw parce la Big Taf laaj nga bëgg gi. non du ko dëpp carte gi dama dama teew ñu nataal maa ngi ñëw. dama laa mën naa wax ba saaga la day te doo ko yëg. <laughs> donc rek xam naa am di. dëgg euh. donc am di. Euh, billaahi wallaahi tàllaahi maa ngi yëkkati sama maa ngi la koy tuubal di la baalu àq ci wax jooju nga fàtte ko léegi te tontu ci question bi. waaw dama tontu bi question bi ngay tontu de. te question bi ma la ma laajaat ko ma laajaat la ko. waaw mooy est-ce que dañ gars yi duñu wax ni euh, euh, yow. yaa war a wax loolu maanaam kuy dig la sagaay day fekk parce que fekk nañ ma la baal naa la nañ jàll ci leneen de waaw léegi nañ jàll a ngi toog <laughs> waaw day dafa lewetal waaw <laughs> am di day rek ñun duna am mutuel mm-hmm. ñun ñun yi mm-hmm. duna am mutuel mm-hmm. am nañ mutuel Arcos a ngi fi. jàppal euh, bu ngóone nduur bi lu mu tuddati. Euh, Sodaaf Sodaaf mi ngi fi. toog nañ. madame Faye woo ma. recevoir ñu première dame. recevoir ñu. yow ak dem. man Serigne Ngagne père bu xar. Euh, bari na ak kan ñoom ñuq ma ma ñoo ñoogu. Kombe xam Kombe ñoom. def naa Cheikhou Gueye ci la bokkoon Sanex ci la bokkoon. Mhm. Euh, euh, bari woon nañ mhm. buñ ñu recevoir ñu toog ku ne di wax. Mhm. madame Faye ne moom bëggatul gis artiste comédien yi di ñaan dimbal ci tele yi ak rajo yi. wax leen ma li ngeen bëgg ma defal leen ko ñi ñii ñuy wax waxu ay production ñii di wax ay waxu kii ma loolu intéressé wu. madame Faye li mu wax mooy nee na jël leen ngeen def mutuel. ibbi leen compte ngeen def mutuel. ma may leen xaalis ngeen def ci yéen artistes yi ku ci liggéey chaque weer nga dugal ci même bu dee vingt mille xaalis boobu du jur bu beneen artiste feebaree ngeen mën ko ci ji faj mu bëgg mu bañ a siw. fu loolu mujjee. fu mu mujjee amul continuité. non ñu foofu fu mu mujjee duñ fa ñëw ko. amul continuité parce que dinañ toog wax ko. Mm. ñi ko Serigne Ngagne. nañu waroon waroon nañu léegi ñu toog mi ngi mi ngi puudaru mi ngi ñëw comprendre la loolu waroon nañ ko waroon nañ ko fekkee. Mm-hmm. amul continuité léegi nag man ma taxaw ñun dañoo am jabar am ay doom nekk ci dëkk bi liggéey Sénégal nag lu bari. liggéey Sénégal lu bari ku di may ma lu ne lu ne ci àddina ku mi di may na ma ko. kon loolu su ma ko gisee milieu bi ñu bëgg ko tilimal dinaa taxaw défendre te Baye Fall. encore ma ma wax ci waxu Baye Fall bii rek laa ci wax pare naa ci. Baye Fall. sama non sama mbokk la déglu leen sama mbokk la ñu bokk métier. wax na ko ci biir wax. Mhm. ñoo bokk si laykan bu mu dëkk kër Baye kër bu mu juddoo. Mhm. ak sama kër papa ñoo takkaloo. sàkkat moo leen sàkkat moo moo leen moo mhm. kon kooku am naa seng-seng bu bëggee yàq euh, loolu deret moo ma sotloo da sot noonu. damay sot da parce loolu bëgguma ko. sotoo xam nga déglu ma yow sot la loolu sot la tudd bisu eh, eh, déglu ma bisu eh. déglu da may déglu da nga posé question damay wax ah am di tey da nga fay da nga ñëw da nga posé question dama lay wax ñun am nañ droit wax ñun waaw am nga droit wax yaa ngi comprendre la am naa droit ne ko Baye Fall fi loolu Baye Fall njëkkee ko fi mais man directement sot loo waaw mais am yow affaire bi est-ce que amul angi sous roche parce que yaa naan def nañ suñu enquête da nga ñëw pour encaisser loolu nga wax da nga bëgg ñu tegaat audio yi. waa déglu ma déglu ma yow xam nga ne man su ma defee enquête xam nga su ma deful enquête xam nga. nan laa xamee. waa déglu ma damay après laa xam xanaa damay déglu est-ce que comprendre la mhm. léegi nag donc loolu noonu bu amee. Mhm. Baye taxaw wax li muy wax noonu loolu daf ma kay naqarlu dama kay naqarlu. yow feebar bi nga weddi wala ñëw di di di. di feebar bi. am de yaa angi suur enquête nga wax ne ci biir wax da nga ne dama def enquête pour xam. Mhm. dama enc xam naa Baye Fall munoo yaa ngi encaissé boobu ba tey encaissement yi dina arrêté li lay faj matul cinq cent mille yaa ko wax maa ko wax te te tey daa ko gën a mën a waxaat dama ci daw naata tey laa ko gën a mën a waxaat waaw ah ah, bijou tey laa ko gën a mën a waxaat s'il te plaît du ñu recadré waat tuuti waxtaan bi c'est important parce que li ñuy wax nii mhm. dafa am solo Baye Fall am na droit wax ni dafa feebar ndax nit bu feebaree dëkk ci réew xam ne su waxee ñu dimbali ko am na droit wax waaw yoon mais bu mu accuser kenn quoi mm-hmm. yow accusation bi ngay ngay ñaaw non ma rek parce que dama bëgg wax bi leer mm-hmm. am di dañi Marième Faye Sall daf leen woo mais tu sais que am na artistes yoo xam ni kenn du leen woo ci dara ndax ndax xam nga loolu yow. yow de man lu ma naqari la xaw ma fu ñu woowee am di bala yow mii. te ñi woo. yàppu ma leen ah non am bi dafa liggéey ci dëkk bi de. non kii moom li mu liggéey ma ñëw non non non moom ñu ngi ciy ñëw. waaw dafa liggéey ci ba nit ñi comprendre ne li may wax du waxi am di. Mhm. am di dafa liggéey ci réew même bu defee tam itam liggéey ci réew mi xëy na communication moo baaxul rek moo tax ñuy wax mais lamu mu wax. non keroog sax la communication baaxul mais mais la mu wax. gisuma ci benn danger yaa ngi dégg bu baax c'est que Marème Faye Sall su wootee am benn association bu nekk Sénégal des association des euh, association des artistes mm-hmm. nekk ci réew mi ñooñu dañu war a woo artistes dañu war a woo artistes mm-hmm. ñoom ñu ci bëri li ñuy doxal ñoo indi problème yi yëpp waaw problème yi ñu laal góom bi ci digg bi mu gën. Mhm. parce que ay am deeki ay bay Faal ak. Hmm. tey jii ñi diriger buñ ko tegoon ci yoon benn comédien du am problème. du wutali site internet bay ñaan dimbal Baay Faal bu moo gisoon ku mel ni man wala mu gis beneen mag bu mel ni Pape fay wala keneen wax ko ko mais ñun artiste xanaa lu ñu wala kaana wala kaana am na dix personnes yoo xam ne ku ci nekk mën a joxe deux millions. Hmm. mu doon vingt millions ñu jox ko ko mu commencé bu képp koy dimbali dina xam ne kat artistes yi kat. ñoo ci jiitu ñoo ci jiitu. voilà loo gis dafa am yoon. jërëjëf Baye Fall tegu ko ci yoon. waa kay non non nga baal ma nag bu caxaan demee dëgg des. waaw am na droit wax ni dama feebar. Mhm. ñun artistes yëpp ñu mobiliser wu te su boobaa sax fa lay dàqee. fa lay dàqee. fa lay dàqee. Mhm. ndax Baye Fall suñu rakk la te taalibe Cheikh Rafal la. Mhm. te ku yaru la. cest am di. na mu waxee moo xaw a jaxasoo te li mu wax tam dëgg la biir. dëgg la dafa waxee am nga ci part de responsabilité tamit yow tamit. ah Père mooy def émission bi tey kon d'accord ah, nañu. non mais dañu waxtaan rek biir. Père nan laa def. xam lu tax. Hmm. Sénégal boo waxee rek ku ci nekk day daal di réactionné. Hmm. ba ko waxee wax ko ci papa ji ba ko di ko excusé wu fa la yi profité pour mën a wax ci moom moom it mu yëkkati waxtaanam ba mu. ba mu dépassé ko moom moom pépé dégg ko. si si maa ngi toog di si dégg na la daf la taxamlu rek. koog yi ma koy wax yooyu gën a metti dégg na la daf la taxamlu mais dégg na la ma koy wax yooyu a metti. non non non mais rek da nga waroon a dama ne nañ ko déglu. yaa ma dégg mu wax. te débat bi du foofu de yéen da ngeen ñëw si la. déedéet non non bisu xaar rek. ah kenn werdiwul ni Sénégal macha allah yàlla na la yàlla la fa cat sa émission bii. benn émission ndax ci télé yi. dëgg la nit ki da koy nangul li koy yàlla defal. yow ak bu daf. wax bu wóor ngeen di wax bu tegu ci yoon. mais nag loo dafa am. yoon bu mu war a mën a jaar. sama rek moomoo ñu quoi dégg nga ñun say grand frère lañu danga débat bi toll fu métti. man normalement woon mu ñëw di def ay affaire mu ñëw di def ay affaire débat bi toll fu métti. donc <laughs> voilà jël laal ay bañ. moom léppam comédie la. ma bëgg ñu xam ne ñun artistes comédiens yi nekk Sénégal. Mm-hmm. ay kilifa nañu. dëgg la. dama dégg sànq ni kenn am fi kër. kenn am fi oto kenn am fi nangam am na ñu am kër am na ñu am oto. Mhm. père comme yow rek père danga naan comme yow. non non du man bëri na. ah père naan comme yow. du man bëri nga ay kër am nga ci ay oto. père nag wax comme yow. ñu daal am nga sa métier. alors mais père dafa am wax joo wax sànq ma bëgg. mais yow en parallèle dafa la may say milliards rek. père kat pauvre boo ko ci cas de. boo ko maa ngi yow wax. fii artiste bu pauvre amu fi. amul waaw léegi mais père man yow daa am soo wax sànq. ah bàyyi fi. waaw non c'est bu jaaroon fi mu jaar mhm. kon kon du sonal. waa mhm. père yow am na sànq foo dégg foo bëgg nga ma ma laaj la fi. parce que sànq dama dégg nga wax ni euh, bu bu ñeet yi am na ñu meloon du bu affaire bi du yegg fii. yaa ngi soog a ñëw nit ñi ñan la ministre de la culture la. wala yéen ñi jiite ar koy yéen en personne parce que bu ñu waxee ñii di yow mënoo ci génn Pape Faye mënu ci génn euh, waa Soleil Levant mënu ci génn ñuy toog mënu ci génn donc yéen la wala au niveau ministre de la culture la. mais xam nga Bijou man boo ne ma wax nii ma ci génn da nga may xam nga la moo tax. Mhm. man lu ñuy organiser duñ ma ko wax. ndax. ah mais xaw ma ñoo xam ne tax waxuñu ma quoi ah. mak Sall jox nañu cinq milliards ak ak ak lu topp. Mm-hmm. fifty na aw ma ko ci te man artiste laa. def ko ci réew mi sax lañ la war a woowee lu mat quatre-vingts personnes lu mat maa leen di maa maa ngi leen di former ñu doon ay jeunes artistes cachés talentueux yoo xam ne kenn xamu leen ma jël sama alal def ko ci ñoom pour ñu xam leen ñun bu ñu kan nañuy woo. donc problème fu fan la nekk nga yaakaar xam nga fu mu nekk. Hmm. association des artistes comédiens du théâtre sénégalais ñoo war a woote assemblée générale. Hmm. waaw. waaw ñu tas ko xool ñi nga xam ne ñoo mën a yor artistes parce que artistes ku ci déposer passeport. Hmm. pour nga am ko problème la ku ci déposer visa pour nga tukki problème la tey bu ñu woote woon grand théâtre entrée gratuite théâtre su scène doo am cinq personnes. kan moo ñu jiite arko boobu. non may rek ma ñëw grand. mais ma ñëw non Pape Faye suma grand la bu leen. non mais non non c'est-à-dire dañ on parle on parle pas de. non nit la wax Pape Faye nag ma du wax ci tax nga xam ni. mooy suñu moo war a baax foofu la yàqoo. loolu laay wax man. waaw. nañ toll foo xam ne ñun ñii moo tax. duñ ko woo ci yenn. non non man man loolu li jëntoon ko de kon dinaa yàgg déranger parce que man damay xëy di liggéey. li wax ju métti ji ak yooyu moo tax te sama métier bi ma am nag aar moo ma ko may ah. Mhm. Cheikh Tidiane Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana moo ma jël toog ñëpp toog mu leen dem leen wuti liggéey parce que aar bi doxul. bu doxee nag ca époque ba. waaw bu doxul nag bu doxul bu doxul métier la bu doxee safrula métier mais bu doxul dem leen wuti liggéey. ma dem wuti liggéey man ba may liggéey j'étais tambour major à Pikine mhm. kuy tëgg man ngay woo wóor na sëriñ ngañ mhm. boobu laa gënoon a siiw ko sax léegi mhm. Pikine ku fay tëgg man ngay wo fay ma xaas bu bari mu tëggal la ma dem wuti liggéey xam nga liggéey ba laa wuti ban kook see xam nga kook see mooy leen sama bopp nag moo ñu taxaw tëgg naan ba tas di wax ni dara ma xam ni man mi nag damaa war a maye nag gis nga day liggéey te bañ a hmm. dépendre ci doomu aadama parce que yàlla li mu yor may ko saraxoo ko wu ko daf koy jaay hmm. boo amul fulla amuloo fayda wala gëmoo sa bopp du la ko hmm. parce que bu la ko joxee da koy jël da koy fowee wala nga jël ko dafa arme di ko guéré yaa ngi dégg est-ce que kon nous les artistes dañu war a xoolaat suñu bopp Baye Fall dafa génn rek yuuxu ñu ko gën a song song fi ne na ñoo xam ne doxatuñu. am na ñoo xam ne seen noyyi dafa am problème. Mhm. am na ñoo xam ne amuñu dépense bu ñu joxe. Mhm. am na ñoo xam ne amuñu kër gu ñu dëkk. am na ñoo xam ne bu ñu dem ci njaganjaay yi ñu dugg siiw loolu nag. Mhm. te loolu lépp li ko indi mooy organisation bi ñu yàlla ma ñu war a organiser wu nekk benn. pour état bi respecté ñu parce que état balaa jàppale nit. mais yow da ngay respecté sa bopp ba pare. Uh-huh. état du jàppale ku ñàkk fayda du jàppale trafiquant de cerveau. <laughs> mais père léegi yow a générale boobu ngay woote pour ñu tas arko bi nga yaakaar. léegi léegi la naa waaw ñu tas artiste yëpp mën am la nañ ñu tas. woo ministre de la culture mu jox ñu. Ah. woo ministre la ah, ma ne woo ministre de la culture mu jox ñu def assemblée mënu ko. man ngañ ak keneen ak keneen ku ne génne un million wala deux millions ñu teg ko ci table. mais deux millions yomb na. période deux millions nga yomb na ay deux millions yu bari la denc nii. kan yow ay période deux millions rek. day génne deux millions teg table bi deux millions teg deux millions yu bari nga yem. am na at su bëri yuy sant yàlla nag. ba xam ko tey. pecc man. maa ngi sant yàlla bu baax xam ne namuñu dara. du ñu ñu wax nag sérieux noonu. mais ñu mel noonu du ñu bu ko bàyyi père yéen loolu yéexoo ko def yéen tas aar ko bi ngeen toog ba bàyyi faal bëgg a wax loolu leen ko def yéen mais grat xanaa xaaral est que yéex a def la peut-être que mm-hmm. euh, euh, euh, père bi xam nga am na ñu bari ñoo xamante ne père nag accessible oo de père traîné woo gëw ma ne Eh, eh, eh, xaw ma xaw ma nu mu demee noonu xaw ma ci sa métti la xaw ma gars yi ñoo ragal dem interviewé la wala dañoo kii mais père accessibilité boobu ba ba solution yooyu mun a ma est-ce que père Zora facilité na travail bi nit ñi. xam nga yaa ngi may tooñ naan ma man invité du ñëw. non man père xam nga bokkul man moom. non non man bu ma invité boo ma naa la fay ma wala du ma ñëw. Ah, yooyu yooyu nag laay wax. mais jox la moo tax invité ma ma ñëw. mais su invité nag ma ñëw. xam nga père père yow say interview. waaw. say interview say génn say sorti lépp dañ koy compter. Mhm. est-ce que am na sax. si am na am pagaille kay am na am pagaille. yi ci am moog yi ci bari lu am importance la wala leen di am wala conférence de presse. man su ma waxee Cheikh Tidiane laay wax man moo tax peut waaw moo tax peut-être. Cheikh Tidiane Diop ak sama liggéey ak artistes dañu bokk booloo doon benn mais ak yow est-ce que nit mën na am solution parce que si tu te fais aussi rare en tant que porteur de voix en tant que porteur de voix naka la ñuy def am solution. ah mais la moo tax ba duma bu association taxawee yow bu ñuy def festival doo yëg bu ñuy dem ci bara fay sal doo yëg yaa ngi si dégg bu ñu leen di jëndee xaalis bu ñuy séddale doo jot bu ñuy séddale doo jot mais xanaa man bu ma demee ci ñoom. mais peut li bii di waxoon tamit a rëdd de être mel ni yow tu déranges quoi parce que gars yi. non si si oui je dérange je dérange mais <laughs> <laughs> nag bu baax parce que bu dee bu dee liggéey damay liggéey bu dee sañse ah. ah. Samba ñu ngi koy nuyu bu baax mu ngi ah, rafetlu bu baax sa teewaay tey lañ gën a tey lañu gën ma eh, eh, eh, dañuy dem nuyu ki nga xamante ne ah mooy gat gi ñu gat gi dugg si léegi ah doo di dem si azu sëriñ nga ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi mm-hmm. def nañ sa kii sànq introduction tardé retardataire mag bi. mais mais xam mais xam nga li tax. xam naa bàyyi bu sedd. waaw la. <laughs> waaw mais di rafetlu jotaay bi. Mm-hmm. di nuyu sama mbokk artistes yi. tëdd nelaw tardé. Mm-hmm. ma bokkal plateau bi. di nuyu sama grand Sora. di mm-hmm. eh, suma xarit la Amdi. Amdi maa ngi moom yàgg nañ. Azou même chose. Eh, di nuyu waa Sénégal yi ñuy seetaan. parce que émission la boo xam ne Sénégal dañ ko bëgg ñëpp dañ koy xaar. di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu képp koo xamante ni tey suñu soppee nga ci mhm. li nga xamante ni moom lañu def yàlla sedduñu ko et di waxaale ci occasion bi di jaale suñu xalifa général mhm. Ibou Seynou Thiaw Laye suma xarit la mhm. kilifa gi dëddu ñu ngi leen di jaale di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram dem ba cana ba tamit def même chose parce que xalifa bi tamit te cana ba ak fi ma nekk presque matul Euh, vingt kilomètres matu ko ñoom tamit ñu ngi leen di jaale di ñaanal yàlla kilifa gi nga xamante ni yàlla da ko fee jële te mu def fa am solo yal na yàlla yokk leeram mm. euh, di wax ni émission bi daal ni ma ko gisee nii rafet na. Mhm. ala daw mel ne pour l'instant ala daw mel ne. ala daw mel ne pour l'instant. <laughs> Euh, euh, Serigne Ngagne ma nga noonu muy fierté moom tamit comme ni ma ko waxee woon sànq euh, xam naa ni ci biir débat yi moom dina ñëw feelu li nga xamante ne moom la Père Zora di wax mais balaa boobu damay dem le temps ma may Père Zora mu soufflé ma ñëwaat ci moom. Karajo may ñu élément bi nga xam ñu fàttaliku tuuti Azou Lebo. gars yi téléspectateurs yi fàttalikuwaat parce que xam nga titre immature yi yàgguñu gars yi fàttalikuwaat tuuti ñu doon di ñëwaat ci Azou. Euh, ah loolu la ñuy dugg affaire bi film la. waaye dara Azou dara non film la. <laughs> assume tes responsabilités rek. <laughs> nee na ko dara. <laughs> nee na ko dara. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va papa na nga def. eh téyel ma sa loxo boobu lii lan ni sëñ bi mais yow foo jógee waaw ma ne yow sa portable ah kii la kat bi aw la yow lan may ma am nga cellule yow cellule amul cellule laa dem ci bunte yi amul leenu cellule mais amul amul waa ki la a dama jaay amul ah yow day massa yow cellule laa jënd ngeen dooma jaay pour la caag na xalaat yi ak góor jigéen la dama la nga may ma nag may ma dama xamul lu fi ñàkk tey nag mais eh, dëkk ni wayal. ñàkk doo ma ñàkk ma de ma de gindal ci biir la ma de ma de ana. xaar mu ñu ñàkk ba. sa da nga am ay gande. yow dama bëgg sangu te bi dafa am ndox ci biir. waaw dama dugg ci douche intérieur bi. sama douche yaay. ah jaabi. yaa ngi gàddu responsabilité ba daal. kii sa xarit la. bët day am rido. waaye yow naka tuur bi maa daan. mais mais yow lan la. si. yow boobu léegi ñaari bir nga fi ne ñaari bir. yow de mën ngaa doon machine waaye man mënumaa doon machine. mais dama sonn. mais waxuma la yow da ngay liggéey wala liggéey lan la lu xew dama sonn. eh eh gars yi ne yow laay wax da ngay liggéey. man de ñu maa liggéey dama sonn nga ne man ko ma nga merci beaucoup Karajo ci élément boobu euh, dañuy ñëw directement si Azou Azou euh, euh, Assane rôle bi nga interprété ko mu am lu bari loo xamante ne mi ngi la ci topp est-ce que tey jii rôle bi regretté nga ci li nga xamante ne moom moo taxoon nga def. d'une part am na lu ma ci regretté bon d'autre part aw ma lu ma ci regretté. Hmm. d'une part li tax ma ne aw ma lu ma ci regretté. Hmm. dama doon yeete. bu ko xool commencement azulobo. Mhm. xale bu ndaw la woon. Mhm. yaroo ci ay jigéen. <clears throat> ñu jël ko dénkaane ka ay jigéen yar ka bi mu doonee xale bu ndaw ay am ay quatre ans cinq ans ñu yar ka boo xoolee film azulobo ñu yar ka ay jigéen ñoo ko yar ci biir hostile boobu la dund la dund amul fen foo xamante ni am na fa lien ak góor wala gis ñu ko ak góor toujours xale bu ndaw boobu ay jigéen ñoo ko yar. Mhm. ba mu màgg ba xaw dëgër. bi mu xawee dëgër nag si lañu ñu changé turam tuddee ko Azulobo mhm. bi mu màggee nag moo waral comme day naan jikko ak kala yar ndaw ak kala miin mhm. mu màgg dem yor tàccu yi muy tàccu réej yi muy réej def yi muy def yëpp yooyu c'est parce que noonu lañ ko yaree mhm. léegi boo xoolee pièce boo commencement ba fin dafa am ay jàngat pour wax suñuy yaay attention balaa ngi di dénkaane seeni doom wala ngeen di joxe seeni doom wala ngeen di xool ni ngeen di yaree suñu seen i doom parce que am na fi ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy dox yenn façon doxe ni wala wax yenn waxoon façon waxe ni te xamuñu sax luy góor jigéen mais nañ leen yaree la te scientifiquement am na góor ñoo xam ne dañu inféminé dañu waaw te ñooñu ça n'a nag moom moo xamul exactement góor jigéen ñu xamul luy góor jigéen du gis nit dox benn façon doxin bi wala wax benn façon waxin bi ñu ne ko góor jigéen te góor jigéen moo la boo xam ne dafa sensible mhm. suñu borom wàccee ci ay aaya fukki ay ak juróom-ñett di rëbb góor jigéen mhm. wàccee ci it fukki ay ak juróom-ñett di rëbb ku ko jël teg ko ci deru doomu aadama te amoo ci lu la leer mhm. te ñun Sénégal yi il suffit que ngay am benn kooxin bi wala benn doxalin bi rek ñu jël la taxe la góor jigéen baatu góor jigéen moo diis mais est-ce que woon nga lii lépp avant ngay jouer boobu non pour man pour man bu ma jëlee lii def ko bu ñu toogee xool film bi après ñun bu ñu amee esprit ouvert ñun sénégalais yi pour ma éduquer leen pour ma yee leen pour ma gindi leen jaral na ma ma sacrifié man rien pour éduquer pour yee leen léegi nag ñoom ñi yee ñoom ñi ma war a yee ñoo war a xool pièce Azoulou boobu bi xale bi doonee xale bu ndaw ba ni mu màggee ba tol ni mu tol ba na muy mujjee di takk jabar ba changé durant boobu ay jàngat moo ca am mais sénégale yi nan nga mën a gisee jàngat yi ci war a am yëpp ak yeete yi ci war a am yëpp ak gind ci war a am yëpp ñoom intéressé wu leen leen intéressé mooy li ci gën a ñàkk fayda muy tàccu yi ak lii moom lañu jël valoriser ko au contraire ñenn ci sénégalais yi ñoo war a am esprit ouverte bu ñu toggee xool film xool commencement film ba ci fin bi man li ma def néew ma yombul mais lu jafe la mais xam nga tey euh, Azou Mm. Euh, euh, Sénégal dañuy confondre le jeu et le jeu. Wow. donc c'est très difficile. Mm. ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën di def différence bi. Euh, jeu bi ngay mooy rôle bi ngay incarner. ak la personne en quelque sorte tey est-ce que amoo benn regret. ci rôle bi nga xamante ne joué nga ko. regret bi may wax bi ma lay expliquer nii mooy regret bi. parce que tamit Azou. Euh, yow yaa nekk scénariste bi ci biir émission. ci biir maa ko bind. yaa nekk réalisateur bi maa ko réalisé maa ko que bu doon li tax yow euh, euh, joxe woo rôle boobu. c' est parce que dama xam ne rôle bi dafa sensible. nga nangu sacrifié wu pour jouer bu ma jël doomu à jàmbur di ko mettre en mal ak population bi comme si même bu fekkee sama artiste nga duma la ko def loo je préfère man ma sacrifié wu pour yee doomu aadama yi. mais Azou d' après ma déggee mel ni que ni. pour na pas utiliser mot olof que tu l'as fait parce que boo nee da nga xam nga doo ko teg aadama doo ko teg sa mbokk parce que xam nga carrément lan la naroon a jur non bu fekkee ni dama dégg si biir wax na ne bu fekkee ni man damay def pour yee doomu aadama yow en personne am nga esprit ouverte am nga xal am nga xalaat boo toogee film Azulubu ñu teg la commencement ba fee nga toog sa biir kër di seetaan commencement Azulubu xale bu ndaw ay jigéen yar nga di ko xool ba mu màgg ba yor yenn tàccu yi. Mm. yow yow dangaa war a oo sa jabar naka hey gis nga film bii. gis nga histoire bi ni mu demee. Mm-hmm. mais pourquoi ngay préférer ne xoolal kii góor jigéen la. c'est parce que amoo esprit ouvert. mais Azou naa la dog foofu tuuti. Mm-hmm. li Bijou wax c'est important. oui ak personnage du benn. Mm-hmm. bi nga jëlee engagement wu joué loolu mu doon loo xam ne nag dafa réussir à cent pour cent. mais après est-ce que doo woon ci woon def ay spectacle di ko jouer mhm. continuer ko bu ko def métier parce que loolu dafa doon rôle boo xam ni boo ca paree rek da nga ci war a pare qu'on se dise la vérité nag quoi bu dëgg jotee rek nañ ko wax mhm. da ngay jàngale jàngaleel pare amaat sa gar nekkaat ci leneen non si xaaral rek bi jour dañu waxtaan rek wax dëgg mais boo ko continuer xaas bi di ñëw nga di ko jouer di ko def bu yàggee mais gars yi dañ lay te li ci gën a doy waar xam nga mooy lan danga am jabar am doom am mbokk yaa ngi may dégg te ñooñu ñëpp bu coow lu jógee ku ci nekk da nga gis sa bopp te mën na la yàqal lu bari ci sa àdduna mën na tas sa jabar mën na yàq sa doom fa nga dëkk sax mën nañ la fa jëlee parce que rôle bu grave nga incarné parce que dafa réussir à cent pour mmh mmh à cent pour cent tey période bi nga ko doon joué boo ko defoon rek dañu war a ñëw sax jël lu ngandu jox la ko décorer la ko félicité la mais na fa yem mais après gis naa la ci festival yi. da ciy dem def ay spectacle xam nga. mais ñenn ñoo ko doon contacter ci festival yi. ok waaw mais parce que du ko génn nag. est-ce du rôle bi mu incarné. moo taxoon rôle boobu moom la ñu. Eh, invité ci festival yi waaw mais kii mu bañ. problème sax bi ce n'était pas le cas. Hmm. Mm. ce n'était pas moom li mu expliqué comprendre naag <laughs> idéologie bi muy wax que ni boo joué role bi rôle homosexuel la noom noonu la ko gisee <coughs> waroo kaa joué feneen non ce n'était pas le cas bu fekkee ni yow da ngaa jël nga joué rôle góor jigéen yow nga joué rôle góor jigéen mënoo kaa dem di ko joué feneen mais il faut sénégal sénégalais yi surtout ñun artistes ñu comprendre différencier la personne et le personnage différencier pièce góor jigéen ñu baal ma ci kàddu gi. Mhm. ak pièce su kuy jàngale nu ñuy éduquer xale. Mhm. man festival yi bu ma fa demee c'est parce que artistes ñoo oote festival ma dem fa. boo fa demee sëriñ ngañ mii mënu faa dem di tàccu ak di lii parce que rôle am lañ koy moo tax ñu oo ko fa. kii tamit de même yow tamit de même kenn kenn de man rôle bi ma incarné nii moo tax ñu oo ma fa kenn ku nekk da ngay dem da ngay installé sa rôle. nga ex nga nga joué spectacle bi boo ci paree nga pare mais bu ñu paree xam nga la mooy problème bi mooy yow boo ma gisee man personnellement man Assane soo ma gisee biisu su ma la manifesté wu la ne man la Azoulo Bou doo xam ne man la Azoulo Bou parce que doxewu ma non xëy na peut-être nga miin ah, sama kanam nga miin sama kanam mais pas Azoulo boo bi ne ci tale bi nga gis Azoulo boo ne kii Azoulo Bou ñaata bu may dox man Ndiaga Ndiaye lay dugg aw ma oto taxi laay jël damay dox Pikine nag fu ne laay dox kenn du xam ne kii Azou Louga parce que du comportement boo xamante ni moom lañ ma moom laay doxee wala di def yenn non non non sama métier la sama métier lu sacré la def naa fi Azou Louga bi ñu paree comme grand li nga expliqué nii. def naa fi Azou Louga bi ñu paree dama kaa jël teg. defaat beneen rôle bu ni mel ah. non déglu ma wax la. defaat beneen rôle bu ni mel. mooy rôle bi ngeen di joué lesbienne yi. déglu ma expliqué la. tu as eh, da waat <coughs> même rôle même personnage. dama defe ne est ce que du da ragaloon buzz bi fay. déedéet du du question buzz mi ngi dépendre ci scénario bi ma bind. mais nga reprendre ak. incarné waat rôle bi il faut nga déglu ma non ma. vas-y expliqué ok bi théâtre Azul boobu ba pare. dañ ci teg tatafina tatafina mooy loolu lesbienne. waaw loolu lesbienne bi dafa am koo xamante ni dafa inféminé nekk ci biir. parce que pourquoi encore. tatafina est-ce que mënul woon yem xaaral bisu tatafina est-ce que mënul woon yem ci tatafina. non non non hmm. man nag maay Assane. kan moo bind film boobu maa ko bind. yaa ko fi suba bu fekkee dama waroon a bindaat film mu amaat rôle boobu dama koy incarné. mais Azou Azou nga baal ma parce que bu ñu ah, ci wax yaa ko teg Azou ah? ma ci wax luñ ma ci wax luñ ma wax. nit mënu ma cee wax. lu ma déranger mais question du ma la laaj. nit am di voilà am nit nga bind Azou ma. nit mënu cee mënu ma cee mais xam nga lan moo tax bisu bisu. kii bu ma ko waxee. Euh. bu ma ko ma jaaga waxee daf may déranger. bu ma ko am di waxee mu metti ma. bu ma ko kii waxee mu metti ma mm-hmm. parce que ñoom ay artistes lañu il sont mieux placés pour xam Azumi exactement lan la joué. Hmm. mais bu dee bii man du ma déranger. effectivement effectivement fi ma bëgg a mooy. bi nga gis ah. Azula ah, mën nga ma may ma dugal ah, foofu. parce que li ma bëgg dugal foofu. grand bi laal na ko sànq. artiste artiste la. Hmm. amoon noo mel meloo neen dafa am nu ñu lay melal rôle bi mooy lay jël am nu mu la melal. suba grand bi dafay nekk avocat est-ce avocat la. war a incarne benn rôle boo xamante ni dafay soxla mu dem jël benn avocat. mais nag Sénégal fii boo joué benn rôle ba incarné nekk suñu bopp. waaw man am naa quatre-vingt-dix mille tours. Ah, damay dégg Papa Diouf damay dégg Serigne Ngagne ah, damay dégg Abdoulaye Diallo. mais rôle bi leen gën a marqué waaw mais dafay am bu ëpp doole. am na beneen rôle tey Père Zora rôle am bi ñu gën a marqué Sénégalais Père Zora. non non non man sama Zora. mais boobu Zora peut-être waaw d'accord bi ma amee sama rak ñu bokk day ak sama rak yor alal te man yoruma mhm. mu di ma di def lu neex bu def bomb film bu def film bi ma ko bi ma paree dawul sax Sénégal lamp fal bu pare boo ko jënd mhm. trois millions avant ñuy dévaluer mais asu boo déggee may mu tudd rek wax la mhm. bi su def ñu invité pour ñu recadrer waat bi ci wax sëriñ nga dama dama doon dama doon wax grand pour wax benn leeral benn am leeral bu ndaw bu may def par rapport ak rôle bi ak nit ki. Mhm. parce que nit ki en personne personnalité am ak incarnation moom la. Mhm. jotuwul ak rôle bi dara. Mhm. parce que jeu rôle bi taxul nga ak fayda. jeu rôle bi taxul ñu war laa yëpp. jeu bi warul tax mooy yaa ma gën a xam Lamine Ndiaye jeu na fi rôle bi. Ah, rôle bi bi ñu ko yóbbee Sorano am na ñoo xam ne dañ leen koo jox ñu bu fekkee yaa ngi fàttaliku avant jour boobu RTS di diffusé. journal. dañoo sensibiliser nit ñi ci rôle bi. du ma ko fàtte maa ngi toog di ko seetaan. parce que dafa indi woon ay ngant moom problème Sorano. Lamine Ndiaye ñëw incarne rôle bi toj ko à 400 pour cent parce que loolu la ñuy xaar ci artiste. mais après fa yam. Mm-hmm. mais kii bu fekkee ni moom man du ma scénariste. Mm-hmm. dafay leer man artiste laa boo xam ne dañuy bind ni ma kaay joué. Mm-hmm. loo ma bindal lu baax xam naa ko. sooy bind damay participer parce que damay am sama ay idée soo jàddee dama ne xëy da ngaa jàdd parce que du ma dox te lii ci laa judd ci laa manque hmm. am na loo xam ne kenn dootuma ko ci jàngal hmm. moom en tant que buy bind buy bind ci lan lay bind dafay inspiré wu par rapport ak lii xew ci biir société bi hmm. société bi lu fi am am na góor jigéen d'accord mën na ci bind am na xaw ma lesbienne xaw ma mën na ci bind ak leneen ak leneen mën na ci bind moo xam mu joué moo xam mu b a à chaque fois bu scénariste bi bind day bind par rapport ak problème yi xew ci biir société bi ak li nga xam ne 100 pour cent sénégalais yi loolu la ñuy dund parce que loolu rek nga mën a liggéey pour am dara. xam nga léegi nag problème bi mooy li nga wax sànq est-ce que nit ki joué na rôle bi réussir ko à 100 pour cent après mu jëm incarné ci beneen rôle. Mhm. est-ce que même ma joué Serigne Ngagne ba léegi gis nga ma ma joué waat lu ah, mel ni Serigne Ngagne da nga dégg ma tudd Serigne Ngagne mais doo gis ma ji ma nekkaat ci même rôle boobu noonu. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg wax mhm. est-ce que moom dafa continuer nekk ci voilà. dafa demande incarne beneen rôle peut boo xaw a jege loolu mais nekkul loolu ba tey man damay jàpp ni am na lu muy wanee lu nekk ci société bi mais en dehors de loolu bu ñu paree Azula Bo moom en personne taxaw nañu xool Azula Bo en personne ba xam moom lan lan lay incarne su fekkee ne incarnation bu muy incarne dafa laal lool moom day am problème ak public bi mhm. mais su fekkee dañ ko xool xam ni kii wa dafa ñëw jée li mu war a jée mhm. pare na ci mi ngi ci leneen mhm. keneen ku ko wax dara da nga koy tooñ c'est important man man loolu laa xam Lamine Gaye ba mu ko incarné da koo toj man damaa yuuxu wax da ko cent pour cent la ko da koo ah, boo jëloon mille personnes duñ ko mun yaa may dégg. te yaa ngi fàttaliku Azolo Go lancement mi ngi nekk ci cassette le treize. le treize Pape Demba ko produire. c'est vrai maa ngi koy seetaan. Mm-hmm. xam nga kon yooyu dafa war a nekk yoo xamante ni ñun dañ ko war a xam. mais nag xam nga rôle bi mu des nii euh, euh, euh, li tax ma ñu ma taxaw foofu. parce que tamit ñun dañuy nekkee du suñ suñu opinion suñu opinion du compter. mais opinion publique bi mooy compter. ak ñi nga xamante dañ fiy toogal ñi nga xamante ne seen xel loolu la jàpp. Mhm. pour yéen ngeen mën ko leeral. Mhm. parce que tamit du moom kese moom moo joué rôle boobu moo ko incarné mu réussir. Mhm. gis nañ fi woon le rôle de Kéba. Kep Kep waaw ah tey jii. est-ce que moom doxee na ba ñu war a wala ñu koy étiqueté wala ñuy wax jëmale ci rôle boobu. mais pourtant mm-hmm. ambiance su Azou Lo ci style ak Kebs c'est pas la même chose. mais mais pourtant nag boobu boobu gën na profond. non dafa parce moom laa lay wax. boobu gën na profond moom laa lay wax. Mm-hmm. boobu daanaka sax kii dafa effet bu mën na sax gën a indice. moo gën a métti. waaw mais dama ne la. c'est plus choquant xam nga affaire fan la nekk. Mm-hmm. ci ña mën na nekk ñaari rôle góor jigéen yu bokkul kii dafa xumb dafay indi animation ci biir rôle am. kay Kanta Kefs mi ngi joué ci bu gën a posé bu gën a def. tak ya bokkuñu ñoom ñaar. loolu mooy différence. am na différence. Ah, ah. moo tax gis nga kii. Mhm. rôle bi mu joué mooy gën a gaaw fat fat pour daf moom par rapport ak li kee joué bokkul. Azula boobu da nga koy xool léegi mu dajji la. Mhm. kay dafay joué nga yow ngay yéemu. ay yàlla ndekete lii am na. mais kii daf lay dajji bokkuñu. mais mais Serigne li ma bëgg a ñëw ci azul parce que parfois bu ñu bu ñu gisee nga def benn def azul la boo indiwaat beneen laalaat juin parce que même chose la rek même àtte bi la nga nga nga indiwaat yow sa rôle dugalaat ci biir parfois gars yi dañuy posé mais est kii amul ñu nekk ci ginnaaw di institut mel noonu. waaw ah, mais sama objectif mooy jamono jooju. Mhm. dama dama sama objectif mooy jamono jooju mooy instant wu boo. Mhm. mooy bi yàlla ma yàlla baal. bi ma ko defee ba pare après dafa am ay góor jigéen yoon commencé manifesté wu temps yooyu. di la contacté non pas ñu contacter bon mhm. mooy ñi ne woon mbaaw doon takkanteeg ñooñu. ñu mhm. ko léegi nag man xaaral. époque boobu jamono ñoom Pam Mbaye la woon. Mhm. après si laa jógee ma jaadi tamit ba ma doon xool point yi sensible yi ne Sénégal ay lesbienne ay giwin ay la vie ay mannequin yooyu dama ci bind yu bari. yoo xamante ni boo xam nga époque boobu peut-être dañu jóge woon ci coow loo xamante ne amoon na fii. Oh. ah euh, euh, euh, ñoom Pam Mbaye dundoon ko ñii génn fii ñii dem fële ñu peut-être sénégalais yi dund benn choc. ñu ñu ba tey ñu nekk ci base yoo xam ne li ñuy wax yépp à l'unanimité dara leeruñu ci muy ñiy wax ak ñi waxul ñi noppi ak ñi waxul est-ce nga. Mhm. muy loo xamante ne ñun peut-être que dañu jékki-jékki rek ubbi benn malaan <laughs> ñun dañu am ay vertu <laughs> on est des sénégalais ba tey dafa am ay ay ay ay ay ay ay réalité sénégalaise yoo xamante ne daf fi nekk tàmmaguñu ku laal <laughs> plaie bi léegi nag dañu commencé di laal plaie bi. di commencé di miin play bi di ñàkk jom ci play bi ci li ma ko mën a waxee boo naan nag booy xool en tant que artiste play booy play boobu nga wax moom la war a laal mais est ce que play boobu noonu artistes yi tey ibbi kii may ñu may ñu tey euh, euh, euh, indi ibbi wuñu voie libre bi mooy rôle yi nga xamante ne tàmmuñu woon di ko gis ñu koy laal fu may nangoo parce que tamit kaay ma wax la. non non bisu dañ daan xaar. Euh, euh, mardi. Mhm. ah, ah, ah euh, daaray kocc mhm. ñuy setaan yoo xamante ne ngay xëy leen mercredi dem école sax. di ko gént. wala mhm. nga koy tëddee ba xalaat guddi gi doon jooy ba su sonn. di jouer rôle yi ay benn am di nga doon gis ci one man show ñu doon def benn affaire te dañ leen ko doon mais am di mais incarné na fi rôle jigéen bu nekk mais ci one man show ta te pourtant dañ ko koy nangata mosoo dégg ñu wax ko. loo xamante ne lu teggi ndawal la ci côté boobu ba tey day reetaanloo plus de mille personnes ci loo xamante ne euh, saa ay troupe mënu ko ci one man show bi mu doon def ñëw solu maquillage interprété benn rôle Fatou Guewel wala benn rôle euh, euh, Mati Thiam Dogo wala benn rôle keneen kum kum ci muy doon comparé lu bokkul bisu non on parle rôle mhm. ok man bi ma koy def ma koy def ak ñi am xel d'accord gis ah, nga tey ñu jàppal ne ñun ñii amuñu xel nga wàcc ba maaseeg ñun waxtaan ak ñun ñu amul xel. non c'est que waxtaan bi sax dafa xel parce que doguma la azub la boobu waxtaan bi amul ñu am xel ak ak ñu amul xel. Hmm. un acteur un artiste comédien ku am xel ak ku amul xel yëpp la war a wax. Hmm. ki mu gën a mën a waxal sax mooy ki ñàkk xel. Hmm. pour mu am xel. cest a dire azu. gis nga nit ku xam ne azu wax la benn après nga yeggale. gis nga azu. Ah. man sa acteur nga parce que bi nga joué azu la boobu. man dama daan ree ba ta ba tàlli man dama maa njëkk a contacté at maa gën a compliqué ca aat mais dafa waroon yam rek quoi amuloo leneen loo ci waroon teg lu dul gënaat ci beneen facette. mais boo ko gis ko ci beneen dañ ko gis ci gis ci beneen facette. c'est pas dëgg moom laa lay expliqué ah. man def naa fi film la vie d'un mannequin def ci beneen facette. joué naa fi azul la veugle def ci beneen facette. Ah. joué naa fi azul trompe def ci beneen facette gis nga loo bëggul gis. Mm-hmm. nit mënu la kaa wat. a ah, xëy na li ñu njëkk a imposé la. ok oh, ah, li ñu njëkk imposé la. waaw yaa la veugle sax dafa man foofu la expliqué non sooful de mais. neex na trop mais dafa am ay erreur yu bëri ci am nag. non non dafa soof may ma tudd ma ñëw rek déedéet. parce que ñu ngi doon gis aveugle bu <laughs> non déglu rek <laughs> bisu. bu ñàkk xorom par rapport ak Assane. bisu neex na de moo ci nekk bu rëy. muy lan muy yaay yaay lu erreur de. ah si si mais même loolu bu dee dëgg sax a ko joué. loolu erreur de mhm. man ma doon expliqué c'est que nag man. man man seetaan samay théâtre. waaw dafa métti yow man seetaan samay théâtre. waaw dafa métti du n'importe qui. waaw dëgg la kon il faut nga am ak xarañte. am esprit ouvert. Ah, mm-hmm. am ak dégg pour mën maa seetaan man. mais est ma seetaanee foo jaar am loo dingat man. Mm-hmm. te li metti ngay laal. waaw kon yow. Euh, euh, euh, man du ma man parce que bisu. man du ma ñëw di théâtre naan papa yaay doom. man xaw ma loolu. Ah. man dama osé di def. man aw ma kenn ku ma jox compte bi. Mhm. ku dul man diggante man ak suñu borom. samay mbokk xam nañu koy. mais mais public bi lay seetaan nag. ci loolu public bi li ma leen di jox. bu ñu toogee ñu xool yow xëy na peut bu dee cent pour cent Sénégalais bu ñu dee 100 pour cent. Mhm. quatre-vingt-quinze pour cent yëpp xam nañ ne azuloboo du góor jigéen azuloboo li muy def. non ñëpp sax ñëpp sax ñëpp xam nañ ko man li ma sama objectif lenn la mooy pour yeete. Mhm. kan xale yaay du kay pourquoi azuloboo en toute sincérité ñu waxtaan sérieusement. Mhm. boo xoolee azu bi mu doonee xale ba ni mu màggee ba ni mu tol lan moo tax thème yooyu yëpp nanguwuñ cee développé ñu jël ñaari thème tàccu bii kenkeñ mooy góor jigéen azuloboo azul pourquoi ça. lu tax loolu. Sénégal yi boo defee lu bon moom la ñu gën a valoriser boo duggee def lu baax ñu ne a ah, def na lu baax de. man lu baax li ma def ci sama film. mais intéressé wu leen. Ah, loolu nga def nga def noon oh. moo gën a marqué nit ñi ci film bi moo ci gën a neex. moo ci gën a neex nag. waaw soo tax moom loolu mënul génn si bopp ah, nit ñi. waaw mais comme loolu loolu la ñu ko xamee loolu la ko gis exactement loolu la ba ci ba ci Azou même Azou li mu wax nii. ba ci boo demee. yow li nga def en tant que artiste mu ëpp doole. boo ko deful sa public bi meral dafa am noonu lay laaj. mais. dox nee na kenn grand grand Mansour ma doon expliquer festival sama première festival bi ma demee. Kaolack Kaolack waaye. pourtant bi ma demee. Mhm. ma ñëw taxaw ma war a jouer ñoom dañ maa oo ne ma non azo yow bul jouer xaaral dernier moment. parce que boobu yaay bës. dernier moment ngay doog a man bi ma ñëwee pour man dañoo toog man ak fàttali naa sax artiste ma àndoon yu waa yu arcos bu bu Dakar bi ñu def benn pe ma toog expliqué leen pièce bi joué ma ci ba ci rôle boobu. pour xamal le grand bi li may wax. foofu laa dend joué ma foofu bi mais kilifa ci lii bi ñoo ma azu ñu ne ma waaw mu ne public bi yëpp rôle boobu la ñuy xaar. ñoom gadeel ak ñoom ñëpp lay demee. léegi man bi ma ñëwee man damaa def loolu public bi yëpp jóg bi ñu paree ma def. Tatafina joué ci incarné ci rôle boobu bi ma pare maa def benn série série laa def jox ko 2S jox ko TFM jox ko RDV ñu toog xool ba mu ba mu neex leen lem ba mu jekk teg na la ñu on te rappelle ñee na ma on te revient ñee na ma après duñ déggoo mais c'est vrai waaw comme ñoom nee nañ mënuñu déggoo te am benn loxo la am di ñëwal ci point bi nga xamante ne foofu lañ nekk nii te comme man benn loxo la gisuma kenn ku ma jàppale maay bind maay réaliser maay finance maay def lépp kee mooy la caméra te man bu ma defee lii am xaalis ma jublu ci sa caméraman mi ngi ne. waaw léegi nag waa léegi nag bul defati kon loo xam ni. sa caméraman mi ngi ne. am di ñëw ci bul loo xam ne da lay may xaalis ko defee ñëpp d' accord ci. d' accord loolu moo gën quoi. am di ñëw ci fi nga xamante ne muy rôle yi nga xamante ne euh, euh, ñu ngi koy incarné mhm. actuellement euh, ñu ñu ñu leen mu leen di topp. waaw man dal la ma barki Demba Ndiaye rek <laughs> yow ñu lay dal bëri na de. barke de moo jaay ak Baye Fall. déedéet ak affaire Baye Fall moom pare naa ci. affaire Baye Fall doo ci waxaat. Ah, ah, ah, ak Omoro. <laughs> Omoro waaw Omoro. waaw dégg naa ci lu ne. te pourtant néew naan du ma ko wax. mais il fallait que ma wax ko. nit ñi mën a comprendre. Mhm. encore une fois man artiste comédien laa. moo tax El Hadj Ndiaye jël ma teg ma ci kër gii. Mhm. pour la lal mooy sama rôle. pour ngay ruube. pour muy ruube. waaw yéen mun ngeen ko xam mais public mënuñu ko xam. dëgg la yéen mun naa leen ko expliquer yéen mun li may expliquer yéen a ma ko gën a xam mise en scène dafa am. man wan man show laay def du ma jouer théâtre wan man show laay def te mille personnes di la ñuy daj. loolay sama fort ngañ a ngi nii ànd nañ tournée Italie bu ñuy jouer spectacle ñu bëgg ma jouer loo pièce man maa doon ree man maa daan ree dañ ko doon mujj wàccee dañ ko doon mujj wàccee ñun cinq la ñoo dañu mujj classe bopp quatre parce am di bokkutu ci ci léegi dafa dem bu mujj gi di leneen léegi ñu maay njëkk jeu loolu laa xam kaaw Omaro xeex bi Omaro maa ngi ci dégg lu ne dama ko soxore dama ko iñaane loolu il faut yi xam ko billaahi dama ko soxore Omaro lay soxore ci moom waaw xeex baa ngi nii lii <laughs> lii dafa amoon beneen message moom moo doon jàllale benn message boo xam ne nii rek ngeen ko mënoon jàllale ci raadu. nii rek laa ko ah. mën a jàllalee. kaa ma mais nag fii dañ la taxawal de. naa de. ku ma xam-xam du ma dóoree nii. waaw <laughs> ah, dëgg la moom man ku ma xam. waaw ku ma la xeex nga. Eh, waaw waaw man ku ma xam dëgg dëgg dëgg nga xam ne du ma dóoree nii. ak sëñ Omaro bu mu ko dóoroon mu bu ma xam dëgg moom xam ne ma dóoree nii <laughs> oh, mais naa xamal lenn sénégalais moo bëgg affaire dina toll foo xamante ni lii internet ah, am di am di xam nga tey ma yeggali fii toujours ngir yàlla war si pour ma leeral lii bopp sénégalais encore une fois xeexuma mise en scène lañ defoon jàllale benn message te message bi fu ma bëggoon mu àgg àgg na fa ban doon jàll mooy corona moom lañ koy xeex bee xeex bee. xeex bee xeex yóbbu corona xeex bee yóbbu message bi. parce que boo xoolee Omaro dafa wax ci waxu sobleeg pommitère. loolu yii daaj ma ne ko man dama wax ci waxu sobleeg pommitère. wan man soo laay def émission laay def wan man soo laay def lu Omaro wax dama ko war a contre. Mhm. mais bu Omaro waxee benn wax ma ànd ak ci kii ànd seeg moom kii ànd seeg moom kon la leen fii def. dafa du émission. doo am dara doo am dara yow lu Omaro wax da nga ko war a contre. lu amuloo wax da nga ko war a compte léegi la mooy indi euh, complication bi ñu naan mais am na mi dafa soof ñi naan am na wax na dëgg loolu lay neexal seen émission encore une fois. taxi nañ taxi nañ la du ne de. taxi nañ du ne dof nga mooy yaay ma ne nga boo yow boo xamante ne yaa xeex si plateau la ngay romb ñaan la borom xeex bi yow la nga romb kii naan la yow eh kaay de. yàqu loolu léegi am na xale nañu nañu waxtaan nañu waxtaan euh, euh, comme des gens civilisés. waaw euh, nañu waxtaan kon li ma wax nii comme gens civilisés civilisés wul. xam nga bisu dafa sax bisu. bisu dafa sax bisu bisu bisu. bisu bisu. bisu bisu. mais dem sax yaa ngi faral sa mbokk artiste bi. non ah, non xam nga ngay ma ñëw après ñu jël leen molo molo parce que Serigne Ngagne la ak yow ak père père bul far li ngay far dafa fës trop du dëgg farul non na waaw déglu waaw ne ma mais dama la may nga daaneel. mais moom ma daaneel bii daaneel bisu encore une fois. dañoo ñëw pour waxtaan ak sénégalais yi parce que sénégalais yi sama rôle lañ comprendre gul. waaw d'accord wax nga ba pare mais dañuy waxtaan. waaw mais mais encore dama gis ni yow. question laay dugal lan may yab. da nga may yab trop. da nga koy am di ah. te du yoon de ah. du yoon non c'est vrai la ma séq ak yow la ma séq ak yow. tey de am ni ma la bëgg a sacrifier mais tey dama ñëw pour leeral sénégalais yi encore une fois boo mënul defar sama image bu ko yàq. ok d'accord en parlant de defar sa image si loolu la ñuy wax pour gars yi xam ni que <laughs> am di est la en tant que comédien tu vois euh, euh, il a quelque chose dans la te wax dëgg yàlla vingt cinq ans de carrière mm. nit ku ko ci def boobaak léegi amul lu luñ la naan cam mm-hmm. du dëgg euh, da nga mës a bégal nit ñi mm-hmm. tey benn affaire bu tuuti ñëw bëgg yàq sama image tant d'expérience mm-hmm. je me dis même ak lu mu mënti doon en tant que Amdy Mignon comédien bu def vingt cinq ans ci ci aussi expérimenté est-ce que tey jii waroon na jouer rôle buzz boobu noonu ci télé. loolu du buzz. am di da nga bëggoon jàllale benn message ci xeex. ba loolu est-ce que dëgg am di. est-ce que du bat buzz kaay ma wax la. Oh. maak yooyu waxtaan. mise en scène la bu ñu teg. waa mais mise en scène boobu est-ce que am di tey jii. Euh, euh, wax dëgg yàlla yow. un gars aussi expérimenté que ah. toi est-ce que amul woon beneen façon yow. boo waroon mën a dugg ci façon bi ñu la xamee nga jàllale sa message ci corona bi que ngay jug di dóorante sur le plateau ci digg digg plateau télé 2STV en tant que dañu xamee 2S waaw mise en scène bu ngeen demee ba tollu foofu ci plateau ngeen def ko est-ce vous êtes désespéré sama gars yi seetaan leen désespéré yow ñu duñ wax ndax dóorante en tant boo waxee 2STV bi rek 2STV bi plateau yàgg na am dóorante yow bi de organisé man je man confrontation foofu moom foofu moom c'est pas la même chose waaw confrontation xam nga mooy lan <laughs> ba nga xamee ni da ngay invité ñuy dóorante waroo leen invité. ñan si. ah ñaata nit nga fi invité ñu dóorante. <laughs> fii ci plateau bi plateau 2STV. kañ la bu fi wax waxu 2STV man dóorante wu ma man en tant qu'animatrice. yow dóorante woo. dóorante wu ma kenn mais invité yi bu ñu demee ba dóorante. Ah. confrontation bi. waaw ah. concept bi. waaw bu ngeen ko defoon confrontation. waaw kenn du leen wax cam. waaw parce que confrontation la concept bi la loolu ba muy commencé ba tey la ku ne xeex na fa. mais léegi nag nii nii nii nii nii nii. am di yow xam nga ne confrontation d'idée la ñu woote. waaw da ngay wax say idée ma wax sama idée nga dindi teg ma teggi teg père bu far. bàyyi ko waaw léegi d'accord waaw bàyyi ma ak moom nag père. d'accord waaw bàyyi ma nga àtte tey. parce que euh, euh, tey euh, am di yow en tant que man en fait man li may wax mooy. Mhm. peut-être xeex boobu dafa am lu bari loo xamante ne yàq na ko ci ku liggéey temps de andi yow. am yi amoon amoon mus nga am ay ay ay équipe lu la gars yi di yàqee dara sax. non musul am musul am. c'était la première fois mais pourquoi loolu ah, moo tax mu choqué ma parce que xam nga nit di nga demee xol ci koo xam ne yaa ngi génn ci situation yoo xam ne mooy loolu mooy gën a garaaw yii mais dama ne nit di nga demee xol boo leen liggéey di foo di kaf mm-hmm. di ree mais dóorante léegi boo xoolee bës la sax Sénégal assemblée la njëkkee mm-hmm. assemblée nationale la njëkkee bës la assemblée nationale ndëgëm ay ñoo ñuy war a jiite si réew mi ñoo taxaw dóorante ay coup peñ ba tey foofu ba tey foofu amul assemblée ci monde bi boo xamantul amul xeex amul assemblée ci monde bi waaw bi ñëppay xeex ci ngay laaj ñëppay bu amoon palais ci la wax bu amoon confronté assemblée dagat na lan moo la wóor ne amul palais yow lan moo la wóor ne dóorante amul palais gars yi dañuy ràbb dugg boîte vocale waaw dañuy ràññee yàqu boîte vocale dama wax dëgg parce que encore une fois man du ma théâtre kat wan man show laa. mais wan man show na na que ça reste da ngay sonal Omaro tout le temps dama koy sonal. pourquoi parce que loolu mooy. parce que li mu def waa déglu est-ce que xaaral ma ah. doo yi nga xamante ne def na ko nga naan mayewul sax benn xar. waaw Omaro maye na lu tolloog ñaata xar. maye na camion xar waaw maye na lu dul jeex. maye na soble yu jeex joxe na wax lu rafet loolu après jàll ci sa message correctement. du ma wax lu rafet parce que xam nga dañoo. Sénégalais yi dafa passé tëbëg si dafa passé korité nga war a wax corona bi ñu ngi rey suñu frère yi ñu ngi rey suñu doom yi ñu ngi rey suñu yaay yi. mais day dem day dem déglu ñëwaat yow nga ñëwaat ñëw toog ñëpp toog nga ne ma nañ wax sama soble pomme de terre du ma lu tax wax ma ko ba ñu def ko def nañ lépp maye nga lépp d' accord nañ maye nga maye nga bu baax waa d' accord yoo la concerné bu déwénee yàlla nga mën la ko raw mais lan lañ ciy waxaat. am na loolu boo am di ñëw dafa iñaan dañu naan ndax dafa dof wax nañ ko dof nga wax nañ ko wax nañ waaye dof du yor jabar sama bopp lu ne dégg naa ko waaye damaa bëgg une fois ñu xam ne sénégalais ñu xam ne sama rôle lii la lii la tax El Hadj jël ma teg ma si télé bi mais pas xeex mais déggoo li ma la xeexuma. kii lu mu def dañ ko war a baal. mais nag mais nag non pas lu ma def dama ko war a baal. mais mais pas lu ma def baal mais nag bisu ku mel ne am na émission ci télé yombul de. non yomb. déedéet mu hmm. yomb. barki sëy te amoon ko noonu la méttee dafa bàyyi woon xam nga ma jeté une fleur. kii comédien yi gën a ay ci Sénégal ci la bokk. bilaay wallaay bu ma gagné trophée bu ne. da ngay wax ca kaw. non du ay caaxaan de ca kaw laa koy wax ah booyee. Eh. waaw ca kaw laa koy wax. yaa ngi may dégg. Hmm. c'est que problème bi mooy. bijou 2S nag def ngeen lu ne mais joxal sëñ gañ ñu cadre waat waxtaan bi parce que artiste dafa am lu ñu soxla. <laughs> ñun ñun ñun dañoo am suñu feebar nañ ko wax. waaw waaw tey nañ nangu li ñu président rajo Seck rek. non non waaw maa ngi diriger man waaw. waaw fa nga nekk foofu la fa nga nekk foofu la. nañu wax ci nañu wax ci suñu feebar am jàmbaar am fils borom non yéen ñetti 2S ngeen di liggéeyee ñun ñetti ay artiste lañu. waaw waxtaanee la ñu. waxtaanee la ñu. match de football 3-3. 3-3 waaw Dora moom moo la gën a xam li may liggéey fii. moom moom ñoom ñaar ñoo la ko gën a xam parce bu ñu amee fii sa manifestation su ma ñëwul dañ may dañ may kar kar. nan nan El Hadj Ndiaye affaire bu rëkkoon wax quoi. no waruma ko wax waaye dama koy naa ko waroon na noppi noppi noonu parce que nii amul dara dama ko yàq parce que dama sonn dama am famille tamit dama am famille damay romb ñu taxoon naa ma da ngay mën a xeex si plateau bi da ngay xeex nii il faut que ma yàq ko ñu dafa rek concept bi bees dafa laa war a bàyyi <laughs> waxtu jeex léegi moom moom moom lépp aajo man sama moom du yàq moom ñoom ñu toog ñu am ay responsabilité war a génn génn daal ñi laa dul def ba pare na la bisu bàyyi waaw na na neex rek. waaw. na neex da nga ñëw pour sacrifier. man ñoom ñoom ñoom la ñoom la sacrifier ñoom la la sacrifier. dañ la seetaan waaw dañ la ba pare ba nga ni mbel. waaw ñu seetaan ñu taxaw seetaan. dañ la seetaan paa naa ma jot naa coup fil fu ne. ñu ma am na mu ñoo ngi yàq télé bi. ma télé de damaa bëgg mu leer. yaa ngi dégg yi ma woo nag bari na <laughs> lancé leen <laughs> yi ma woo bari na na neex de. mun naa laa mun naa laa merloowaat. <laughs> bu ma merloo de bu ma laal man fenn nga ma a laal mooy sama papa. mais leneen man man leneen intéressé wu ma mais dama ne. bi daf fi def pousse. El Hadj Ndiaye jëluma fi pour may ñëw di di si luy di yaru di tegale samay tànk naan wii wii si si waaw <laughs> doxo fayu ñu ma loolu <laughs> man dañ damay ñëw pour may ruube damay ruube émission bu mu neex fii nga fii nga invité Kéba <laughs> waaw mais kii ma la yaa ngi dégg fii nga invité Kéba ma ñëw am di nañu rafetal suñu diggante waxal ba ma ñëwee ba ma ñëwee waxal de loolu foog Sénégalais yi xam sama lu la neex nga waxal lu nga def di nga ñëwee waaw ba ma ñëwee sa émission dafa neex ak sëñ ba mu ñëwee. ba nga invité Kéba. ba mu ñëwee sa émission yow loo wax. <laughs> da gis Golaye léegi nag léegi ne nii moom xoolal. waaw ne nii moom. Euh. wax dëgg na yàlla xoolal. man léegi doxal leen. ma féetewoo maanaam man li ma bëggoon jàllale. li ma bëggoon mu neex sa tekki leen sama micro. yow a da leen a woo. te kii mi ngi fa woon yaa ngi fa dem ñëpp. te ñun la njëkk woo débat bi ñëwagul foofu ci nga bokk te yow la ñu woo nga woo artiste yëpp te woowul dama lay wax lu leer ni que dana waaye émission bi taxul a sax jóg ay plateau yi ba nga di dem lu tax woo Père oh, loolu xoolal loolu ñu ngi ñëw foofu ñu ngi ñëw <laughs> woowu leen Père de te yaa fa nekkoon nañu ñëwaat ci rôle bi. ban woote woote yi daa bëri ban woote ci woote yi. woote yi daa bëri woote dem nañ ay yoo xam ne man yëguma. waaw ah, am na woote yoo dem ban woote ci woote yi. Ah, Karajo Karajo may ñu publicité ñu demaat léegi léegi léegi. woote yi daa bëri